في عدم المنى الحمد لله الحمد لله الحمد لله من خلف نبل من لينكو سيار مجالنو كوكا دبل ألا قدنا ريشن ونخار يا ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di jël sunu nuyoo ak sunu cant ak sunu ñaan ci xalifa bi di ko sof ci nuyoo yi nga xamante ni moo jiitu ñaanal ko gudd fan ak wér ñaanal ko yàlla mu mottalil ko naal yi nga xamante ni naal na ko ci xadara maam jataay bii nag ku ko gis xam ni ñu ngi waaj bis bu rëy muy ziara général loolu moo waral ñu gis El Hadj Mansour gis El Hadj muy Kiram ak Ahmadiyya waaye gis fédération Ahmadiyya muy El Hadj Mansour ñooñu ñëpp nag ki nga xamante ni tey moo leen ëmb muy commission ziar générale président de la fédération Abdourahmane saar Pay jiitu ko yàlla na yàlla yàggal taxawaay ñu jëm nag ci bis bu rëy ndax Serigne Babacar si moo sos daayiratul kiram lu jiitu mu leen sos ëmb na leen orienté leen teg leen ci yoon daal di leen bàyyi ñu génn mu ne ñii ñooy su may gët ñooy sumay tànk ñooy suma loxo ñoo yore suma ñoo ñu ñoo wëlbatiku ci 1930 sukk ci kanamam ñaan ko bëccëg boo xam ne njaboot yépp dañuy daje ziyaare mu consulter ñam war a consulter ndax Seydi Hadj Malick da ko ni woon njabootu kaw ak njabootu suuf ak nit ñi am yaama ci doy moo tax général simple nit ñi am yaama ci doy njabootu kaw ak njabootu suuf ak nit ñi mu consulter ñam war a consulter daal di leen woowaat ne leen nangul naa leen ko moo tax ziyaar la boo xamante ni yëpp naafila la waaye bii faratal bii ñu jëm farata piir la muy la 12 mars ñu ànd ko kilifa yi ñu war a àndal yëpp dem ndax nag ah malakullahi la ziltu minal kurama wërngal yooyu ku fat bi jam ko mu tuubaali man xadaroo fan lañ jëm ci waawoon kuñ koy fekk mooy ki nga xamante ni tey moom la ñuy organiser ziar bi muy sëñ Babacar Sy Mansour kon am na teguwaay am na cëslaay li ci des mooy ñu waajal suñu bopp ruuxi yan waajal suñu bopp xalbi waajal suñu bopp jismi yan pour dem taataan leer ya nga xamante ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moo waxoon ni bëccëg bii ku fi ñëw poussière bay tag sa kaw koo yéenewul yiw bul sangu këram kon loolu nekk na loo xamante ni du rek lu yomb mbir la moo xam ne ku nekk da ngay waajal sa bopp ubbi say bagaan ngir taataan lay ballee sa leerit yaawoon ya dem ci sa kër nag wàccee ko fa mu jur yiw boo xamante ni Sénégal mën na ci jaare am jàmm ndax dëkk ba ñu jëm dëkku leer la ña fa tëdd ay nitu yàlla lañ ña fa ñëw di sàkku ci barke ay njabootu yàlla lañ kër nitu yàlla nag bu la yaree ba nga sotti ku la xool xam ne mat nga yàlla sëkk jàmm ku sëriñ yar nga xam ne mat nga ko sëkk taalib loolu moo fi nekk kon nag ñuy woo ñëpp à partir de huit heures ni ko bàyyi ñaa ngi ko waxee ci convoi kenn bañ a tardé ñu def ko rek kotti kotti yolli yolli parce que am na ñoo xamante ni bu ñu la séenee ngay dem ci sol ci comportement war nañu xam ni fi nga jëm mooy ki nga xamante ni ku mu yar muy Seydi Hadji Malick ku la xool rek yëg si yow yiw yëg si yow tedd nga yëg si yow mbaax yëg si yow discipline loolu la ñuy sàkku ci ñëpp lii nag mënuñu koo ñàkk bañ a wax si suñu turu bàyyi Moustapha Gaye mi nga xam ne moo ko daan toog def ko su doon kàddoom lay gën a mate asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu la jog nag teel a dem Tiwaawan ñii ànd ak convoi bi ndax bu ko convoi xasee jog yoon yi day daal di xat ñuy ñaan nag mbokki chauffeur yi nga xam ne ñoo jiitu Tiwaawan képp koo xamante wàcce ngay nit nga dégagé route bi ba nga xamante ne yoon wi dina mën a yaatu ba ñii ñëw mën a jàll si bu yomb ngoon ñuy ñaan daal képp koo xamante ngay dem ci xale yi ñu teel a jog teel a egg Tiwaawan ndax kat kilifa gi dafa bëgg waxtaan ya ñuy def ñu teel ko def si jant teel a ñibbi si jant. pour loolu nag ngoon taalibe yi foog nañu ñu teel a jóg teel a egg sa saal ba ñi nga xamante dañuy xewlu ñu teel a xéewlu a ñëw yàlla nañ ko yàlla may ñu fekkee ko tal ko yàlla jàppale ñu bu baax fa dëggal di gërëm bu baax waa koskaas ndax ànd nañ ko action daara ji ahmadiya ah waa kër Seydi Jamil ndax organisation bi lépp ñu bokk ko mu rafet yàlla na yàlla gën a rafet ngoon ñu gërëm bu baax président Ousmane yàlla nañ ko fekkee tatal ko ngeen baal ñu wax

واصل يا تعبنا آجنا ليت يا خليفة يا خليفة يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الواهب النعم